Sénégal moom kenn waxutu fi waxu ndóol ñun dañu dépassé ndóol neneen la ñuy dund tey Sénégal kon xaw ma ban xeetu nattu la wante yàlla na yàlla gaaw a teggil nattu boobu ma wax ci waxu projet bi mu nekk projet bu ñu ñor mooy extension du centre de gériatrie de Wakam di ngeen ko gis fii centre bi mooy centre bu noonu accueillir des personnes retraitées ay ñit ñu mag pour ne pas dire ñu màgget lii mooy maquette lii mooy maquettu centre bi di ngeen gis début de travaux yi travaux yi ñu nii te am nañ yaakaar ci ay fan yu néew pour ne pas dire fii ak peut juróom euh, juróom-ñetti weer dinañ ko au moins mën a réceptionner de grosses œuvres donc bañ a guddal loolu laa bëggoon wax di dalal askan di dalal xeetu askan wi ñun lu ñu tax a jóg mooy liggéey moo tax lu ma waxoon ma koy biiralaat dama ne ñu bëgg a wax nañ leen bàyyil ñoom ñu wax seen droit la wante nañu bàyyil ak suñu droit wu liggéey te kenn du ñu tere nag liggéey dama ne kenn du ñu tere liggéey lu ñu namm liggéeyal ci audience bi nag di ngeen gis jàppo bi nii jàppo bi dafa nekk un point bu may inscrire ci audience bu ñu fas yéene incha allah am ak président de la république lu tax jàppo bi am solo ci ñun <coughs> Sénégal dafa am tey lu ñuy woy diversification des sources d'eau tey daanaka quasiment ndox bu ñuy am Dakar mi ngi jóge ci lac de Guiers en grande partie état amoon na benn projet état amoon na benn projet de dessalement de l'eau de mer projet boobu nag xaw ma fan ci gars yi toll moo naroon nekk la deuxième source d'approvisionnement en eau de Dakar troisième source bi nag mooy lu ñuy woowee la nappe phréatique nappe phréatique bi moom moom ngeen di gis nii su ngeen xoolee fii à gauche di ngeen gis lii mooy Dakar Plateau moo lu mooy lu ndaw lu ngeen di gis noonu à gauche di ngeen gis que effectivement ndox bi ba tey ndox bu baax na parce que tubaab yi bu ñuy tabax dakaar mooy dakaar Plateau mooy ay Sicap ak ñoom seen foofu yëpp dañ ko dugal assainissement moo tax tey waa FONES su leen neexee mën nañu exploiter la nappe phréatique de cette zone mais su ngeen gisee su ngeen génnee Dakar commencé di dugg Grand Yoff dem Parcelles Assainies di wuti Guédiawaye Thiaroye foofu yëpp di ngeen gis ne que la nappe phréatique dafa dafa à la limite elle est inexploitable ndax lan ndax ñàkk assainissement bu fa am fosse septique yu amul benn étanchéité yu fa nekk te fosse septique yooyu daanaka ndox bi day wàcc mooy lu ñuy woy le nitrate moo tax su ngeen gisee su ngeen génnee Kër Massar ngeen di dem Sangalkam di wuti Bayaax ngeen gis ndox bi tamit naka la bëyee parce que foofu ba tey ndox bi euh, elle n'est pas encore wante état bi su ci jógulee fii ak maximum dix ans lu ñuy woowee la nappe de Thiaroye la nappe infectée de Thiaroye nappe boobu ci gàttal moom mooy dem bu diggi bayaax lu ko waral nag mooy ñàkk responsabilité bu état central nekkee ñàkk ormal doomu aadama yu yu état central nekkee dëkk bu mel ni Sénégal ñu am fii ay urbaniste am ay aménagiste am ay architecte am tout genre de spécialiste ci dëkk bi ñu ne dañuy tabax ay dëkk lépp te amul benn assainissement moo tax ñun ba ñuy organiser suñu forum de l'eau ñu ne ñun lu ñu nangu nekk dans la diplomatie de l'eau lu ñu ñor mooy nañuy waxtaanee ndox nuñ koy dund ak nuñ koy nuñ koy gisee Dakar ci mbiru inondation yi ci mbiru euh, géej yi ak xale yi lab yi ak ñoom seen ak surtout nag ci mbiru la conservation de la nappe phréatique l' assainissement ma koy wax fii assainissement du compétence transférée maire moomul assainissement maire du gérer assainissement wante tey mënuñu nangu tey nekk maire bu mel ni Dakar yow mu wóor la ni que fii ak dix ans quinze ans Dakar à la le lac de du amati benn source d'approvisionnement en ndax lan ndax télé bu état central télé ndax lan ndax caaxaan bu état central nekkee te loolu du benn dëgg du benn yoon moo tax ça fait partie ma bëggoon nag wax ji leer parce que balaa may dee ñu ne Barthélémy Dias dafa dut baaram diw dama ne diw ñoruma lu ma ñor mooy état état nag yàlla moo dogal tey mu am ku koy ku koy représenté ñu koy woyee le chef de l'état chef de l'état boobu ci audience boobu dañu fas yéene interpeller ko sur des problématiques qui relèvent de sa responsabilité donc foofu laay xaare état du Sénégal xaaruma état du Sénégal feneen donc nag mbokk yi moom laa bëggoon euh, wax. Euh, ci ci wolof. Euh, xanaa gërëm ñëpp.